Euh, salaamaaleykum mbokk internet yi ñuy seetaan ci Sénégal seen site officiel rawatina ci suñu yeneen plateforme yi moo xam Twitter Instagram Facebook ak YouTube rawatina mbokk yi ñuy seetaan Sénégal ak bitim réew waa bitim réew ñu ngi leen di seetaan bu baax di masawu ñëpp ci jàngoro bi euh, tey ñu ngi dalal gan gan gi sax. mën nañ wax ne moom moo ñu dalal parce que ñun ñu ngi nekk ci biir Ndakaaru actuellement te sori wuñ ko lool muy la jaraafa Adama Mbeng bu Soumbédioune jaraaf bu Soumbédioune tey moo ñu dalal te yaa ñu dalal ah ñëw nga suñu bureau mais yaa ñu dalal rek ñu naan la salaamaaleykum ñu bàyyi la nga nuyoo ko askan bi ñu seetaan ci Sénégal. asalaamaaleykum askanu Sénégal salaamaaleykum askanu Fass Colobane Gueule Tapée askanu Fann Point Amitié salaamaaleykum askanu Médina di nuyu Sénégal yëpp di wax gannaaw ba ñu sante yàlla julliwaat ci yonentam bu tedd bi. xamante ni mooy sangu-sangu yi di ñaanal réew mi jàmm di ñaanal le président de la république jàmm ak soxnam parce que ci njiit am jàmm ci la réew mi di amee jàmm dëgg yàlla ñoo ngi ñaanal ñëpp jàmm ñuy ñaan yàmm sax fi dakk ba law ci biir kër gi di Sénégal jaraaf euh, Adama Mbengue alors li ñuy lay euh, jëkk laaj rek mooy si situation bi nga xamante ni ci la ñu nekk situation boo xam ne boo génnee sax boo demee kër jaamu nuyoo kenn du la xàmmee ndax masque yi ñuy takk suñuy kanam daa mel ni kii nit ñi léegi seen doxalin yëpp soppeeku na rawatina tamit nit ñi jaaxle ci feebar bi nga xam ne yàgg na fi mu ngi fiy def ñaari at ci at mi ci àdduna bi yëpp rawatina Sénégal jamono ji mi ngi def ay ravage tey feebar boobu noonu naka nga ci yittewoo yow. waaw gannaaw ba ñu santaatee yàlla bu baax a baax. Mm. feebar bi doon benn mbir moo xamante ni. Mm. lu ñëw ci addu àdduna bi la lu ñu xaarul woon la ñun Sénégal rawatina ak lu lébu lu ñu xaarul la woon li magu lébu yu doon wax rek séentu weer jarul buuxante fépp foo taxaw seen ka ñu ko daan dégg Chine muy raam di raam ba ak suñu dëkk man sama njàngat lu ko gën a lawal mooy politique bi parce que homme yi ñenn ñi ñoo ci wax askan wi loo xamante ni amul ñenn ñi ñoo ci wax askan wi loo xamante ni am na mais ba mu demee ba toll fii mu toll askan bi yëpp xippiwaat nañ seen bët jëlal seen bopp seen responsabilité. Mm. parce que man mii di wax ak yow démb laa dugg gëltàppe mm. hôpital bu fa ne Fass hôpital bu fa nekk Colobane hôpital bu fa nekk xool nit ñi ba hôpital Fann mu wóor na ma ni feebar bi am na ma jóg ak sama njaboot ak njabootu lébu ne leen jóg leen ñu ñàkku ji. Mm. si laa ko def démb. am na ay chaînes yu ma jël. ba ma koy def. loolu daal feebar bi xanaa ñaan yàlla mu jóge fi te nit ñi di wax nit ñi dëgg dal kon yow sa bopp ñàkku nga ak njaboot gi. ñàkku naa ak njaboot gi. kon wóolu nga ñàkku bi. waaw ñàkku bi ñàkku naa ko. Hmm. te gor lu doy xalam rek lay def. Hmm. te doy na ma. Hmm. am naa yaakaar ni moom moo fi matuwaay bu fi sës. te lu fi sës moom. moo fi sës moom la ñuy defi looloo tax ma defi mhm. waaye jaraaf ci feebar bi mhm. euh, yéen yàlla am na loo xam ne dénk na leen ko mhm. euh, ci ci wàllu xam-xam ngeen yi gëstu ci lu sol di xam lu bëri uteeg man mii nga xamante ni euh, xaw ma dara feebar bi nit ñi ñu ngi naan mbas la lu yàlla wàcc la nattu la ñi ñu ngi naan dañu ko créer yow sa bopp nan nga ko jàngatee jaraaf ah man sama xam-xam bu gàtt bañ ko xoolee ci baatin xool ko ci jaayir man ci li ma ñàngat. mooy feebar bi rax na. rax na doon tam mbas la luñ ko doon wax. Mm-hmm. ñaan nañu yàlla nuñ ko mënee def nañu ci maam yi nuñ ko mënee. Mm-hmm. ba tey mu des fi. Mm-hmm. te lenn rek moom ma ci jaaxal saa yu ñu bëggee vague ñëw rek day ñëw. moo tax daal sama xel mu gàtt. mooy rax na rax googu nag moo tax ñu war a dem ñàqu ji. parce que ñoom ñi créé feebar bi indi ko fi. ñoom ñoo xëyaat créé seen i vaccin nañ nañ leen ñàkku ji. kon dañu war a ñàkku ji parce que ñoom ñu bëgg nañu mu jeex. waaye vaccin bi de dañ naan tamit wóorul. ah man def naa li doy sama xel. <laughs> kon boo mu doon digal di ma digal ni ma dem ñàkku ji. képp bépp sénégalais bu may dugal digal. Mm-hmm. parce que sunu nawle lébu. Mm-hmm. la ñu dénk ministre de la santé muy Abdoulaye Diouf Sarr. Mm-hmm. te am naa yaakaar ni. yabul lébu gi yab gu day ni hmm. dugal leen ci ay vaccin yu leen di rey ëllëg moom mu def fi ak suñuy sët kon moom dootul dund hmm. loolu moom lu ñu wóor la parce que mëne nañu ci baatin mëne nañ ci jaayir hmm. suñu reyee sunu njaboot nañ ko faagaagal bu ñu naxee moom dina ko gis amul ma dem te ak ak ñu ñu mu àndal président ak ñëpp ah nu mu mënti demee moo tax daal moom ba mu joxee kàddoom ma dégg ko ak doylu gi ma ko doylu ak lii ma jot a xam ci moom ci yoof moo tax ma jóg dem ñakku ci Mhm. Mhm. loolu jot ngeen cee waxtaan yéen yi nga xamante ni yéen a nekk fii ci ndakaaru di ay jaraaf eh, di ay dignitaire muy ci diggante si wàllub aada ak cosaan ci wàllu baatin tamit yàlla may leen ak zaahir est-ce que yéen ñëpp waxtaan ngeen ci li nga xam moom mooy jàngoro bi xool naka ngeen ci jubloo pour mu mën fee mën a jóge xamoo loolu damay profité di waale sama idol sama xarit mën naa ko wax muy jaraaf yu Ndoye mhm. yàlla dogal ni suñu doxalee rôlu jaraaf ba toll fii ñu toll moom am na lu mu ci jeu am na lu mu ci incarné ba tax na ñun ñëpp suñu royuwaay la am na ay jukko yu ñuy rafetlu ci moom ay jukko yoo xamante ni bëgguñu ko jël ci moom beneen bi la grand sëriñ Ablaye Matar Diop ñun ñaar suñuy relation demeewul noonu mais Pape Diagne sama xarit la sama nit la sama kóllëre la man nag maa ngi wéeru ci au conseil lébu di Grand Cap-Vert mm-hmm. muy El Hadji Maodo Ngom jiite ka mm-hmm. dëkk Tëngéej mm-hmm. boobu mooy au conseil bu mag bi ëttu lébu gu mag gi moo nekk noonu yàlla dogal ma nekk Soumbédioune Soumbédioune ci biir Ndakaaru la nekk mu am ay penc pénc mais pénc ñi dafa am ay nit yi nekk si biir pénc yi bugguñu juboo am parce que arrangé wu leen parce que kuy wax ngir sa daraja doo wax ki ngay wax dëgg parce que am na ñoo xamante ni tey ba jamono doon jamono ba léegi. ñëpp xam nañ ni Dakaaru ab njóobeen moo fi mës a nekk ndey ñàmbur. ngayeen yu ñu xam yëpp chef de pence la ñuy doon. tey ngayeen bu jógee di wax. ci turu ndey ñàmbur bàyyi njóobeen bi. kon moo ngi séparé Ablaye Matar ak lébu gi. ku nekk xam na ni Ndakaaru ba mu sosoo ba léegi. Mopot Meng muy sama maam. moo njëkk nekk la première jaraaf di Sénégal nekkoon ak tubaab yu gore ba mu fi jógee mu jur payeen yi méngee ni amatuñu góor gu dëgër bu mën a donn ba tax payeen yi ñëw law fi yàgg fi lool ñuy doom suñuy doomu bàjjen doomu di jaay tey yàlla mu dara tewul di dogal du dogal ba nomb gi ñëwaat suñuy tànk dina am nag ci lébu gi askan woo dem moom noonu la sagam yonent bi moo ñu gën ñun ñëpp ñëpp ànduñu si dina am ñu ci bëgg mais dina am ñoo xamante ne ñu bañ. mais comme li nga wax léegi am na ñu nekk ci biir ñoo xamante ni ñooy séparé. ndax mhm. leneen loo xam ne xëy na. Mhm. mi ngi ci seen xel wala boog seeni i doxalin mais pourquoi yéen ngeen xam loolu ba pare nangu ko mhm. tey jaraaf Youssou Ndoye génn fii. wax li suba euh, Abdoulaye maxtaar Diop génn fii mu mel ni ki kii du kii du jaraaf kii warul nekk grand sëriñ de Dakar man affaire boobu daf ma yéem. ki ñoo xamante ni yéen kàttan gi ngeen yor. dara mënul jaar seen diggante looloo ma jaaxal man. te sëñ bi. saa yi ñu bëggee juboo mu ñor leen suñuy kilifa. saa ñu bëggee juboo dinañ ñu fexe dajale ñu ci benn saal wax lu ñu ñor ci Sénégal. jénn def ko. mais bu ci nekk ku ci nekk sa xarit bu soxlaa. walla sa intérêt soxla. dangay bàyyi intérêt lébu gi ngir sa intérêt. loolu moo gën a yokk pour juboo bi du gaaw. mais loolu wartu mën a am. sa intérêt warul am. intérêt lébu gi ak lébu gi ni ñu amee doole. man su ma gisee yooyu noonu daf may daf may jaaxal te kàttan gi ngeen yor comme ni nga ko waxee. Mhm. kàttan gi mooy yéen boo leen bëggee waxtaan yéen ñëppay dajaloo ci benn milieu toog waxtaan. Mhm. intérêt Sénégal demaat seen yoon. mais mhm. séparation boobu noonu moo ma jaaxal moo tax sànq ma ne la ci feebar bi est-ce que booloo ngeen yéen ñëpp pour mën a liggéey ci wàllu boobu pour mbas mii nii mën fi jóge muy intérêt wu sénégalais yëpp. man de ci sama xam-xam bu gàtt. doon ndaw. tolloog sama génération su ma juumulee jaraaf yi ñu fi mujjee fal yëpp maa ci gën a nekk xale. Mm-hmm. parce que am naa yaakaar ni man maa gën a xam nu jamono di doxee. Mm-hmm. parce que dinaa dugg ci biir nit ñi di waxtaan ak ñoom. Mm-hmm. rëyu ma. dinaa fekk jàngoroy askan wi ma xam lan la. xam lan la jeunesse bi dund. mais jaraaf yi sundooy nag moo la gën a nekk xale sama père wa. <laughs> waaw kooku sama. idole booy la yenn saa yi dugg ci biir nit ñi kenn du ko xàmmee. waaw xamoo moom <laughs> xamoo moom ndeysaan bu ñuy wax rek. Mm. ak lépp lu ñu mën a wax rek dañ naan doolee jën ndox dëgg la dëgg tey jaraaf Youssou Ndoye ak loo ko mën a waxal ci lébu gi mm. mooy def ci bay waar gu yaatu ba nga xamante ni doomu aadama mënu ko jénne ci lébu gi jàmbaar la am na fit lu mu lu mu fu dëgg fu mu ko fekk fan la jamono yi maam ba léegi mm. ak lébu gu ñàkk fit mm. wala ak lébu gu ñàkk baatin man gisuma ko déedéet. Mm. kon moom bu melee ni mu war a mel. Mm. dañ ciy sant yàlla rek. Mm. mu mel ni kii suñuy valeur daf ñu réer xale yi kenn xamatul kan mooy sa kilifa xale yi ñu ngi wax lu bëri amatuñu valeur lu ne ngay dégg ci internet geeg ci mbedd meeg. Mm-hmm. jëf gu ne ba mbiru góor jigéen boobu noonu waaye yéen léegi boo leen séparé woo mbaa loolu du du leen ëpp doole. non man gisuma séparation am na. parce que saa su ne wax dëgg yàlla. ñoo ngi diisoo. parce que man mii su ma waxalee yàlla rek a tax mm. jaraaf Youssou Ndoye moo ma yar ci keppaaram mm. moo ma formé mm. li ëpp lu nekk ci man moo ko def mais saltigam Maodo Ngom moo ma sampal moo ma tuural dugub moo ma defaral li tax ngay nekk jaraaf si sama nombal maam parce que chaque fois damay faral di wax ak bopp mënut njëkk sax béjjën mm-hmm. dafa bari nag ci lébu gi mm-hmm. dafa am lébu gi ak lébu yi ci lébu gi am na ci ñoo xamante ni dañu bëgg njëkk sax béjjën ko bopp te loolu mënul nekk kenn ku ci nekk bu ñu toogee ñu xool sa cër lu mën a nekk la lébu da nga koy donn ci baay da nga koy donn ci ndey parce askan la boo xam dafa yaatu bu njëkk suñuy maam lébu gan lañu gonoon fonk seen doom moo waral tey jii ñoom ab Abdoulaye jóob Matar ñi dem ba dooni lébu parce que man dama daan faral di wax naan lébu gi bu ñu ko doon miraas góor ñaar lay am jigéen benn kon Diop suñu kilifa kon benn lay am parce que ci wàllu ndey la doon noo dool naw ko ci wàllu baay ci ngoone méng yaay jàll la doon noo lébu xam ni miraas bu ñuy miraas góor ñaar jigéen benn moo tax lu bari ci biir lébu gi da ngay xam noppi parce que mën nañ la dëkkal foo dëkkul mm. wala ñu lay wax looloo bëggut a wax mm. mais daal xam naa ne baatin bi jaayir bi lépp moo ci biir lébu yi mm. bu lu ñu bëggul mu am rek du am lu ñu bëggul mu am du am mais am na loo xam ne fi mu nekk nii mi ngi law nag waaw mi ngi ñuy jaaxal corona bi yéem nañu mm-hmm. mais beneen jaaxal nañu muy mbiru góor jigéen yi mm-hmm. te ay kilifa ngeen mm-hmm. te ndakaaru moom defe naa mbirum góor jigéen moom wulee na fi ñaay lool lool coow li bëri na trop. dëgg la xamoo jamono jëla ñu génn ci gannaaw. Mhm. songu nañ fi su ma jumulee wàllu sekk. Mhm. waaw jiiñ nañ ko lu nekk ci li mu doon def centenaire Gibraltar. Mhm. man yàlla dogal na ni waali pàppam laa gën a xam ko waali parce que pàppam laa daan nekkal guddi ak bëccëg. ñuy waxtaan ci ndakaaru lu ñëwagul. mu koy woy ñu naan ay téere lay woy fu mu koy jëlee. waaw coom balaago ko yàlla yërëm. Uh-huh. yàlla na yàlla yokk ay leeram. Uh-huh. man tey dafa may metti uh-huh. ñu ëlbati ko benn jour gis benn jeune. nekk ci millier bi. man ñaari yoon yu ma dem këram yëpp ku dee ak sa bàmmeel dama ko fekk mu toog ci kaamil alxuraan di jàng. moom waali macha allah kon su ma ëlbatikoo ñu koy jiiñ góor jigéen te teguma ko ci bëtam. gisuma ko. man en tant que jaraaf mën naa taxaw naqarlu ko. te ñi ko doon jiñ. soo duggee seen kër. suñ ka nekkulee tamit gis nañu seen seeni doom di doxalin doxin yooyu parce que ñoo ngi sol yére góor jigéen ñi di sol kin yeeg di sol lépp. di taxaw. yooyu lañuy xool parce que valeur yi fi maam yi bàyyi woon moom la xale yi bëgg dindi. roy nasaraan si. loolu moo ñu sonal ba tax tey xàmmeetoo góor xàmmeetoo jigéen. xàmmeetoo jigéen xàmmeetoo jinne xàmmeetoo rab. parce que jigéen dalay romb di dem sax nga jaawale kër jinne ndax taar. ndax taar. Mhm. parce que jamono moo toll foofu. moo tax feebar yi di ñëw ci dëkk bi. jinne yi bu ñu sañoon doomu aadama yëpp jeex ndax ñoom ñu ñëw jëlaat seen i wàll. xam nañ ci lu baree bari loo xamante ni jinne yi bu ñu sañoon. Hmm. corona bi rey doomu aadama yi fii dox yëpp ñoom ñu jëlaat seen dëkkuwaay. xam baadu ñoom ñoo ko fi indi jinne yi ñoom seen bopp. non baadu ñoo fi indi corona parce que liy dee bari na. mënuma wax ñoo ko fi indi mais xam naa ni daal si gàttal. Hmm. ñoom bu ñu sañoon. Hmm. population bi. ñu bari dee ndax ñoom ñu mën a dellu seen dëkkuwaay parce que seen dëkkuwaay la population bi dëkk. jaraaf noo noo xamee loolu ne jinne yi ñoom bu ñu sañoon askan bi yëpp dee ñoom jël seen waar da wax ak ñoom da ngeen gis. wala a ba ma nekkee xale. Hmm. ba ma nekkee xale daan na su ma waxee sama maam da daan jël doom doom sama jëmmi. Hmm. parce que dama daan toog ba ci yàgg rek mel ni daa am ku ñëw ci man. ne ma lii wala ma gént loo xamante ni su ma ko waxee rek automatiquement dama koy gis. Mm-hmm. yàlla dogal ni su ma mësaan a teg sama loxo ci dara rek loolu day dox. Mm-hmm. boobu falaguñ ma jaraaf. Mm-hmm. nekkuma ko. ba Île des Serpents ku xool xam ni ba accident boobu dafa am. man mii man maa jëloon combat bi di ko xeex. parce que boobu falaguñ ma jaraaf. mais dama ko gisoon di ko wax. naan ñii ñuy jox gaal yi saa yu nawetee dinañ fi rey nit. Sénégal yëpp di ma dégg ma koy wax. ma ne leen dee moom ci kaw île bi mm. suñu méttiwul île bi dinañ ko tëj mm. parce que lii rab yi soxla ginne yi defatuñ ko mm. ñuy jël nasaraan si nekk ci kaw île bi di fi def naka su dul noonu di def lu leen neex jam si île ba waaw def ko benn lieu public boo xamante ni comme ni la sa ndey juree nga fa nekkee waaw te kii fa dëkk jullit la buggul yenn yi kan moo fa dëkk lëg daawur moo fa dëkk moo dëkk ci île bi moo dëkk ci île bi léegi nit ñi nan lañ koy xamee ba pare di fa dem wala xamuñu xamuñu loolu xam nañ ko dem mm. di fa def aw di fa génne say awraag di def lu la neex foofu. xamoo xam nañ ko. Mm. xam ko moo tax ñoom ñu fay dem. Mm. xam ko moo tax ñu tuddee ko île des Madeleines. xam ko ñoo tax ñu ñëw diggante Soumbédioune Koussoum Anse Bernal. ba Cap Manuel. xam ko moo tax nit ñi taxaw di fa ñaan seen soxla. ba fii Magic Land bi nekk tey. ba Magic Land. ba fii Magic Land bi nekk tey foofu yëpp ay noppalukaayam la woon. mais tey loolu yëpp dañ ko ko xañ mm-hmm. te saa yoo ko xañee boppam mu wan la boppam saa yoo ko xañee boppam mu wan la boppam moo tax accident yi doon fa waaw moo tax ñu tëj ko léegi tëj ka nag ci état bi la mm-hmm. pour defaraat mm-hmm. moo tax mais defar gi day bëgg yàgg parce que lu ne ak ku ko moom mais wax ngeen ci ak état bi état bi muy jël décision boobu waxtaan na si ak yéen ñoo xamoo kër lu neex boroom kër tey ñun lébu gi ñootu tuutootul nanguti di jëm ci géej état ñëw jël décision boppam kese ne lii la fiy doxal. Mhm. parce que boobaa bu fi dee amaatee wala accident amaati ñun ñooy summeekuwaat waat duggaat ci ndox mi dem du sauver nit mhm. di tëmbal sunu gaal. Mhm. ñun ñoo bëgg état jël ñu xam géej defal leen formation bu gën daggal leen salaire parce que île des serpents lu muy liggéey ci xaalis bari na. ñoom ñu yor sécurité île bi. xam nu ñuy dawalee gaal yi di fa teer. mais jël ay volontaire rek jàngal leen machine ñaari fan rek jox leen gaal yi ñu yóbbu ay doomu aadama ci île bi te île bi lu nekk fa am loolu rafetlu ma ko pourquoi yéen ñi xam foofu noonu mënuñu leen dénk loolu projet boobu noonu xamoo projet bi ba mu njëkkee ñëw suñ mbëjul lañu waxoon dañ koy jox mais ku nekk xam na ni mbir du doxee ñoom lu leen arrangé rek am benn association bu nekkoon suñ mbëjul muy ñii di nuuru kër yi ak bakkalaka yi ñu tuddee seen bopp aar sunu géej mm, mm-hmm. nekk fa mm. ci biir aar sunu géej am ay mool mm. am ay nuurukatu kër mm-hmm. mais ñooñu ñoo dem ba jël projet bi nekk ci mm-hmm. mais ci kaw nekkin googu yëpp ñun mool yi ñoo ngi artu commandant bi fa nekk ñoo ngi wax ak moom mais ci moment boobu mënul gis parce que dafa gisoon ni intérêt yu Soumbédioune moom moo ñu taxoon jóg te bu doon intere yu Soumbédioune kese moo ñu taxoon jóg ba ñuy laaj sunu suuf googu di fa def camp kon dañuy bañ ba ñuy laaj Magic Land di ko dee foowukaay dañuy bañ mm-hmm. ku nekk xam na lébu lu ko suuf jaral mm-hmm. loolu yëpp ñu ëmb ka nax ñu ba def fa ñu fay def mm-hmm. tey ñun mënuñu gis suñu bopp mais yéen li ñu leen di nax dafa bëri de yi waaw <laughs> ñu ngi leen ñu leen di nax dafa bari maa ngi gis côté aéroport bi sumbe juun géeg beneen ak beneen mais li ñu leen di dafa bëri de alors lébu gi lébu gi moo moom ndakaaru am nañ ci cër boobu mais li ma dégg ñu naan dañ leen yi nax ak man loolu noonu man mënuma ko nangu daal est-ce que dafa am ñoo xam ni xëy na dafa ànd ak ñi dañoo ànd ak ñoom ñuy nangu ñu leen di nax wala. xamoo tey bu ñuy waxante dëgg. waaw man sama jëm bopp jaraaf aadama may ngi li ma xam. Hmm. man duma ma xeex ak état. Hmm. xeexuma état mais du ma nangu état noot ma. doo politique. si dama am na ay xaritu politiciens. yoo xamante ne dañuy soxla. Hmm. ñëw ci man wax ma seen soxla. ma xool mu méngoo soxnay askan bi. ma gis seen profil mu wóor na ma ni bu ñu bu ñu leen jàppalee. Mm. ñu jàppale askan bi ci lu ñu bëgg. Mm-hmm. ma doog ci dugg. Mm-hmm. mais duma ci dugg par hasard ay yaama neex déedéet. Mm-hmm. kon ma ànd ak maire yi fi ne. man képp ku ci deful loo warul def su ma la fëggee sa bureau nga bañ ubbi. Mm. dinaa dem fu ñu koy waxee ma wax ko yëpp ñëpp dégg ko. Mm, ci bu ñu génnee ci loolu ci wàllu euh, géej gi. su ma am na ku ne da koy xar de jaraaf. <laughs> jaraaf. waaw ah, oh. <laughs> xar bee coow réew mi fi mu ne man moom du ma ci commentaire gu commentaire gu bëri. Hmm. di ngeen nangu ñu xar géej gi am déet. xamoo lu magule bu yi wax. Hmm. yàkkamtee dem pénc yóbbu dëgg dafa lu gën. Hmm. parce que ñun suñuy kilifay lébu. sàggan nañu. sàggan nañu. ba tax ku ñëw suñu biir yàpp ñu. yàpp lu ñu. léegi nag yamatuñ ci ñun. ñoo ngi jëm ci cunu ñu ñu gën a supérieur muy rab yi nga xamante ni ñoom la ñu dëkkal. ci hmm. parce que tey su ma déggee kukkande lañ koy wax xaw ma. kukkande muy kukkande xaw ma. Ah. man wax dëgg yàlla du ma koy faral sax di seetaan. Hmm. parce que dama xam ne séntu weer jarul buuxante fépp foo taxaw seen ka hmm. doon ci waxtaan ak la préfet. sous préfet Djibi Diallo. moom tamit maa ngi koy nuyu. à passage maa ngi koy nuyu. mu doon Jakboor ñu ngi koy nuyu au passage. Ah. mu nekk sama xarit tamit. Mm, mm. ku may conseiller tamit ku ma dooleel. Mm. ma kay ñaan di ñaan Soumbédioune. donte maa kàddu gi waruma ñaan sax dama war a wax ñu def. dogal mm-hmm. uh-huh. di ñaan ñëpp mooy ku kànde ñun ñoo ngi koy dalal jàmm si Soumbédioune. mooy bu bëggee ay barrière mu wax ñu ñun dinañ ko luwee ji def ko fa bu bëggee taal. ñun dinañu jindi këriñ taalal ko lépp lu mu soxla ci àdduna bi lépp lu mu soxla dinañ ko defal hmm. mais daa am benn condition kese bu ñuy teg bés bu xarul géej gi hmm. dinañ ko sol ci saaku yi seer ko comme ni sunu maam yi daan seree sàcc yi hmm. dinañ ko sol ci saaku takk ba mu dëgër sol ko pour mu xam lu nekk suñu ba jun leneen ni nag dama koy nga takkee noonu nga def da ngeen tëmbal dañ koy yeew ay xeer seer ka seer mooy lan tëmbal ko biir gi tëmbal ko mu di coow ku kaan da jeex bu ko xarul waaw bu ko xarul su ko demee nag ba xar ka mu wóor nañ xar ka mm. na jàpp ni jaraaf mii mooy premier taalibe <laughs> que jaraaf dina signé ku nekk taalibe waaw parce que mm. pour man mm. wax ki kay wax bu ko gëmul ñi koy dégg sax waruñu kaa gëm mm-hmm. parce que yàpp yàpp lëg daawur ak njabootam moo indi loolu damay faral di wax képp kuy matu doo tala uti far mm-hmm. yàlla na ko jig moom ba bés ba mu tala agsi mais la moo tax mu choisir Soumbédioune man loolu ma jaaxal demul Yoff demul Cambérène koñ ñoom naa mii moom Cambérène la dëkk sama technicien bi. xam demul Ndar sama dëkk ba ma <laughs> demul Tëngéej ah. xamoo Kounkandé. Mm-hmm. dafa wax benn wax. wax ji ëpp ko doole. Mm-hmm. journaliste yi nag bàyyiwuñu ko pour fen loo ko. Mm-hmm. moom tamit mu jàpp fi mu jàpp. mais xam na ni ay fen moom du romb téeméeri at. lan lan la wax. parce que nee na de dina ànd ak ñoom xar géeju Soumbédioune ñu xam ne moo fi man moom moo fi man la bëgg xam hmm. mais bu fi manut du fi manul bu fi manul moom bu fi manul waaw waaw léegi moom après bu fi manul kay yow kay wax nga ko nee nga ne dañ koy dañ koy takk si saaku dem <laughs> waaw biir géej ba tax ni yàpp gi mu yàpp Soumbédioune mooy hmm. Soumbédioune boo xoolee certains temps yi ci Ndakaaru hmm. xeexu Ousmane Sonko bi ba mu fi jénnee xale yi su ma juumulee xale yor seen mer di taal dëkk bi mm-hmm. boo seetloo dëkk bi yëpp tàkk na ba mu des Soumbédioune mm-hmm. station Total bu fa njëkk bu fa gën a rëy Soumbédioune la nekk waaw tàkkul sagam xelu sénégalais yi ñoo nekkul ci taal ka mm-hmm. moom xelam mu toog ne dinaa def lu fi kenn mësul def dinaa xar géej gi téyek ay fan nit ñu dox ci waxul sax dama koy xar wan wan nit ñi mën na téyek ay fan la wax ah, nit ñi dox ci nit ñi dox ci ñu war a tukki tukki ñu ñàkk tukki tukki ku ci mën a nekk kii si borom ñaari tur yi dugg ci ma labal leen man lenn rek laay mettitlu hmm. te lébu gépp ñoo ngi koy mettitlu hmm. muy maam maam Matar Gueye hmm. Jamra buy ut bëz wala muy ut ku ko dooleel na ko utee ci feneen lu dul dem di fenal lébu gi lébu nag mën nañu reyante ñun ñaar mais du ñu nangu ku jóg ne lébu gee la yónni pour ku kànde ba ñëw bañ a ñëw su mbéjul yónniwuñu ko Covid bi dinañu jël mesure barrière yëpp tam xarit parce bëgg suñu ba ju neex. Hmm. site inter yëpp net yëpp dinañ ñëw télé yëpp dinañ ñëw. Hmm. ñu xàllal ko suñu ba jun su ma joxee kàddu gi ne bu ko kenn def dara kenn du ko def dara mu ñëw def li muy def. jox nga ko ndigal daal waaw bu deful lu muy def ñun ñu def li ñuy def. ngeen digal ko biir géej. non dinañ def lu ñuy def moom Kounkandé am na problème. Hmm. am na sas de. waaw mais taamu gi mu taamu man su ma jun man looloo ma ji yëpp dafa wala rab bi la bëgg a gis. soo bëggee dégg wala yéen la bëgg a dégg. soo bëggee dégg dégg. waaw mooy ku tuddul sumba jun ci waxtu wi ñu nekk nii. Mm-hmm. ñaar ñett boulangerie sax bu bees léegi da ngay gis ñu bind ci boulangerie Soumbédioune. waaw pharmacie Soumbédioune da ngay gis ku dem ba ci biir dëkk bi bind Soumbédioune. Mm-hmm. parce que rawaan bi moo nangul guddiñ tool nii Soumbédioune. kon man su ma nee ma ne Pape Maguette Ba Soumbédioune. soo ko defee ba boo ko defee ba ren di déwén nga gis beneen changement. Pape Maguette Ba Soumbédioune sëy naa. Mm-hmm. Pape Maguette Ba Soumbédioune. ja Pape ba bu jaraaf Adama Mbengue Soumbédioune soo ko defee ba ren di déwén hmm. nga gis leneen lu bokkul ak yow su ma avancé wul nga dellu ci ci ñun nga xoolaat sa bopp ñun hmm. ñu tekki li ñu yoon parce que Soumbédioune du caaxaan hmm. gis nga Soumbédioune dafa am ay kilifa ay rabi ki jinne yu fa dëkk lu ko commencé Cap Manuel fii Jean dëkk nga xamante ni boo koy tuurul foofu sàngara nga yóbbu ak cigarette nga ñëw kusum foofu ñu bari ndeysaan dañuy réeree mbir bari na seetkat yoo xamante ne ak fajkatu rab yoo xamante ne boo leen laajee rab bu dëkk kusum xamuñu nan la tudd mënuñu la ko wax kooku mooy Mbay Njaay Mbay Njaay ñu ko ñemee bariwul ah. ñetti tuurukaay moo fa am bii dugub la bii soow la bii sàngara la man su ma bëggoon ñu tuural ma foofu mais soo ko jaawatlee ñetti pax yi hmm. def sàngara jàppal ne lu des sa dund da nga koy naan ba keroog ngay dee. déet waay waaw parce que du ndakaaru sax duñ ko foowee yabuñu ko. Hmm. du ku ne moo fay dem tuur ji. de yabuñu ko mën nga ñëw si ëttul ak daawur. Hmm. moo leen njaboote ñoom ñëpp parce que hmm. jullit nga. nga toog di wax naka su dul dégg sax mu maasaale. mais moom kenn yabu ko ba fay def lu ko neex. mbay njaay waaw mu jénn walla la boppam. nga ñëw lu ko dalee Soumbédioune. île des serpents mm. ba jëm Magic Land noonu ci jullikaay bi mm. noonu yëpp ëtt lëg daawur la dafay faral di doxantu di ko aaral boppam mm. di ñëw ci armeer yi di giar di def lu ne Soumbédioune ngir Soumbédioune dem ba tey moom lëg daawur def loolu ba tey moo ngi koy def donte kilifa la jepalaasam mm-hmm. bareetul mm-hmm. te daawul daawur coolee bare yëpp du lu ñuy teg bët nii waaw mën na la romb nag ci melokaan bu ne mais boo xamul bopp dëgg dëgg dëgg di nga xam ne mbir romboon na la rek dem hmm. mais di lu ñuy teg bët di ko xool wala ñu koy waxtaanee boo xoolee ndakaaru hmm. Sénégal laa la wax hmm. benn rab bu góor bu ko ëpp tur amul fii moo fi ne mooy kilifay rab yépp kon moom lañ topp nga ñëw jëm fi hôtel Terrou-Bi commencé jëm ba fi place des Blancs nekk jëm noonu yëpp foofu njool weex moo fa ne. njool moo fa ne. njool weex waaw. kooku de moom moo nekk foofu. Mm-hmm. bari na ñuy nappantu foofu. Mm-hmm. wala nga guddee fa di entraîner. Mm-hmm. nga gis ci suufu tànk yi ba ci kaw. Hmm? waaw parce que doo gis bopp bi mën nga gis fi tànk yi commencé doo gis bopp. daa weex tànk waaw moom bu ñëwee da digal. kàddoom ngay dégg mu wax la li mu lay wax soo ko jëfee baax na boo ko jëfeewul. gis baax la quoi waaw. parce que fii lu soxor amu ci. Hmm. moo tax Kounkandé taamu fii. mais nag am na loo xamante ne bu ko deful ñun dinañu def loo xamante ni. waaw Kounkandé nag ñoo ñëpp ñu ko sotee dina doy waar de mbay njaay rek bu ko. <laughs> sëñ bi Mbaye Ndiaye rek bu ko dikk bu jógee ci moom rek du baax. sëñ bi wallaahi. moom xam na loolu Kounkandé moom ni nga wax nii rab yooyu yëpp moom xam na leen mënu leen xam. xama moom mënu leen xam. boroom xam-xam la nag barki démb ndeysaan maa ngi dégg Idrissa Ndiaye. Hmm. di wax mu koy dindi. Hmm. Idrissa moo ëpp ku dul ku kande xam-xam. Idrissa Ndiaye waaw ku kande. Mm-hmm. xëy na jënn na. Mm-hmm. li mu jàng ñun dañ ko koy nangul. Mm-hmm. jënn na jàngi na ay fétiche. ay luxus. jënn na jàngi na yu bari. ba tax ni li mu yor moom na ko mais ëttu lebu lépp loo fa indi dinañ la ko wecci te boo juumee balaa ngaa jéggi xale yi nangu lii. xamoo su mbéjul. waaw ñu bari idi def fay ñëw di tuuru. ñu bari senegal yëpp réeree mbir ne xamul dara. kan si Idi waaw ku xamul dara lu teg tànkam foofu mukk doo leen ko seetaan sax fu xam dara la mm-hmm. mais xam-xam doomu aadama mooy wuute mm-hmm. yàlla da lay dénk lii dénk sa moroom lële mm-hmm. bu ñu bëggee jël suñu bopp def ko yonent bi duñ dem man am na lu ma yàlla dénk loo xamante ni dénk ko Idrissa Idrissa am na lu ko yàlla dénk loo xamante ni dénk ma ko saltiga Mohamed Ndiaye bu nekk yoof am na lu ko yàlla dénk loo xamante ni dénkuma ko am na yoo xam bu ma ko soxlaa dama koy woo téléphone moom mottali ma ko am na loo xamante ni nag su ma dee ba soxla ko ba mu daj sama kilifa mm. saltiga Maodo Ngom laa jëm mm. parce que moo ma ci doy mu jox ma ko mm. mais nit xamul dara kenn du ko wax wala pas guerrier sama jaraaf Youssou Ndoye <laughs> non jaraaf ñun lu ñu la mën a wax mooy dañ koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram parce que bu ñu waxantee dëgg lébu gi li fi des moom kese moo ci ñeme taxaw fii. di wax ñenn ñi dëgg. loolu dëgg la. Mm-hmm. xamoo ñun moom ay ndaw lañu. Mm-hmm. te projet yu ñu nekk. Mm-hmm. àndul ak wax ju bari. tey man bañ ma faleeg léegi projet bu ma njëkk a def. mooy avant maa nekk jaraaf dama doon mettit xale yi di dee ci géej gi. foofu bëgg ñëw immigration bi. xale yi dee ci géej gi. man dama ko doon mettitlu mettitlu ko bu baax. yàlla dogal suñ ba jun daje. ëttu lébu yu daje ñu xool ci baatin ak zaahir defar ma préparé ma hmm. ay at ay weer yu bari ma ñëw ba ñu teg ma fi hmm. sama mébét bu ma njëkk a gis hmm. naka la sama xarit doon dem clandestin de yaayam toog di jooy naka laay def ba loolu jóge fi ñu toog ñu waxtaan ak suñu staff ñu ne lébu dafa bugg foowu rawante gaal ñu xool ay association yu nekk sumbejun caaro yi mbuur dëkk bu nekk association bu fa nekk di doxal hmm. ñu ne dañuy lëkkaloog yow ànd ak yow waxtaan ak yow pour xeex mbëkk gi hmm. ñu jóg nag ak sunuy moyen bopp hmm. ñu ñëw Soumbédioune def fa boo xamante ni xale yi nga xamante ni dañ doon dem clandestin ba ñu déggee message bi ak ba ñu déggee date bi ñu jàpp rawante bi heure boobu heure tukki la ñoom ñu ne du ñu dem dañuy xaar rawante gaal gi ñu toog fi rawante rawante rawante ba rawante bi jeex. Hmm. yenn xale yi di waajaat pour dem ñu jàppaat beneen. ñu jàppaat beneen bés. Hmm. mu toog leen ñu ne ñam nañ ko fii mu neex. Hmm. ñu continuer. dem wakaam def ko fa. suñ ba def nañ ko ak benn association bu ñuy wax INAPAS. def nañ ko fa. def nañ ko fa tamit ak benn association bu ñuy wax CAPS. def nañ ko ak moom. ñu dem wakaam def ko avec les jeunes pêcheurs de wakaam. bu réussir. ba ñoom xale yi ndaw yi jël seen kàddu na dematuñu mbëkki dañuy toog pour liggéey seen dëkk dem mbaaw dem caaro yi mais dañu dem loolu yëpp ñu koy def diinaa bu ñu koy def yëpp état lañ koy defal mais gisuñu kuñ si jàpp kuñ si jàppale ñu jël ay millions dugal ko ci di xaar retour président wala soxnam woo ñu xam ne ñun ñii kat li ñuy def lu am solo la ku xool daaw ci waxtu wi ni xale yi doon demee di diyee ak ren ci waxtu wi bokkul parce que li kay liggéey si baal bi si suuf fexeel nga gisante ak ñoom dooleel leen ndax ñu mën a continuer def seen activité am na ñoo xamante ni nag boo leen gisee di leen wax waxi président seen bopp lañ lay wax jàppale ma jaraaf ndax dama bëgg jël maire sàngam dama bëgg jël maire sàngam comme seeni soxla bopp la ñuy wax te man dañ ma jàngal bés booy wax ngir dara jël nit doo ko wax dëgg te man dama bëgg képp ku ma janoon siy bët ma waxanteeg yow ci dëgg ak fulla ak fayda moo tax ni képp koo xamante ni sama kàddu yaa ngi jàppale jeunesse su lébu jàppal ne ñun jaraaf dinaa la jàppale képp koo xamante ni jàppalewul jeunesse su lébu bul xalaat su ñun ak ku mu mënti nekk li ñuy def nag ñoo ngi koy def ngir yàlla dooleel ñu ci xale yi dem du tukki. te état war na si mën a jàpp. waaw état war na si jàpp. parce que moom ngeen di jàppale tamit. bu mujj bi ñu def Soumbédioune. Mm-hmm. yàlla xam na ni Abdoulaye Diouf saar moo ci jàpp ak Cheikh Tidiane Ba. Mm-hmm. ñoo ci jàpp. Mm-hmm. mais jàpp bi demeewul noonu. ba tax ni bañ ci jógee. pour ñu defaat yeneen sax dafa kii yàlla dogal sax feebar bi ñëw ñu tegoon lépp su suuf. mais bu feebar bi yàlla dogalee mu jeex ak jàmm. dañuy continuer suñuy activité parce que ñoo ngi fexewaat beneen programme boo xamante ni dañuy nemmeeku otu lébbu gi tefes gu nekk ñu dem fa yóbbu fa mask yóbbu fa gel waxtaan ak ñoom sensibiliser leen ñu dem ñàqu ji ñu aar képp ku feebar nekk ci kër gi ñu bañ a fee topp li ngoom yeeg jinjeer yi di ko jox yóbbu ko hôpital ñun ci yooyu la ñu nekk waxtu wi ñu toll nii. Mm. ci programme yi. Euh, jaraaf ñaari question rek moo ñu dese waxtaan bi dafa neex moo tax ñu yaatal ko bu baax a baax a mm-hmm. baax euh, ñaari question yooyu bokk na ci benn boo xamante nii bëgg naa ñu wax ci wax nañ léegi mbiru mbirub euh, Kunkande. Mm-hmm. mais beneen boo xamante tamit ñor na ma lool xam naa ñor na leen ku jóg ne day faj day faj rab day faj jinne mm-hmm. dama am ay rab dama am ay jinne mu bëri fi lool est-ce que tey loolu demul ba nit am fitnaan day dem Soumbédioune naan day xar géej gi te buñ ko defee mm-hmm. sénégalais yëpp topp ci ñooñu damay faj rab dama am ay jinne rab bii rek daawur moo ànd ak man mooy sama maam mooy sama nàngam loolu tamit war ngeen cee jóg taxaw ci def parce que il faut que loolu ñu teel ko arrêté mm-hmm. ndax mi ngi law ci réew mi carrément xam nga mooy wax ji ma la wax sànk rek mm-hmm. dafa am lébu yi am lébu gi lébu yi ak lébu gi waaw mais fajkat yi yemul rek ci lébu yi ak lébu gi waaw tey lébu gii di faj mm. suñu ñàkkee fay ba ñii lébu lébu gi ñëw di wàcc géej bàyyi ba guddi di fa ray gëléem di fa ray loo xamante ne rab bi bëgg ko nga nangu ko bu yàggee moom muy uti jinne jinne yi mën nañ kaa wuyu si parce que xam-xam yàlla moo koy joxe dëgg la lii faj mën na nekk ci bambara bi ko mën na nekk ci salu xule bi est-ce que dañ koy wuti wala dañ koy xëcc dañ koy jàng lu ñuy jàng la mais ñun li nekk ci ñun la lu ñuy donn la ngeen donn la xamoo loo donn ak lu ñu kii man da wax dëgg yàlla du ma toog ci benn télé wala rajo ma ne benn doomu aadama kaay ma faj la wala kaay ma jàppale la li ma yàlla dénk maa ngi ciy def ak samay mbokk yi nga xamante ne maa ngi leen ciy jàppale te yàlla tax fajuma du ma sëriñ du ma jinne du ma malaaka mais am na lu ma yàlla dénk loo xamante ni su ma gisee jullit bu soxla sonn dinaa la jàppale te yàlla tax mais nekkuma fi ubbi benn pavillon boo xamante ni dama naan naan lii day faj lii lii day faj lii lee di faj lale parce que loolu du sama cër buñ la faree jaraaf ñoo ngi lay xaar ci àtte xeex ñoo ngi lay xaar kër gu tas nga ñëw ñoo ngi lay xaar ku manqué dépense ñëw ci yow ñoo ngi lay xaar ci yu baree bari lu ci baree bari <laughs> man wax nga lu am solo man manqué naa dépense ci yooyu la ñuy xaaree jaraaf <laughs> jaraaf da ngay tax gars yi ñëw de ku manqué dépense gaa yi dañuy ñëw de maa ngi def lu ma man dëkk bi daa daa dëgër de li ma man hmm. li ma man hmm. li ma yàlla dénk hmm. man xam naa ni manqué bokk ak nit ñi ba may ñëw fii hmm. dama rusa yéeg sama oto ñëw hmm. taxi laa jël parce que bugguma ñu xam fi may dem dëgg hmm. may ñëw fii taxi nga jël taxi laa jël oyof de yow parce que xama lan laa xam man bugguma di ànd ay nit démb tey may ëlbatiku ñu fal ma moo wane beneen jëmm joo xamante ne naturelu xamoo gaal ci kaw ndox lu naturel la waaw mais ndox si biir gaal du lu naturel léegi dafa bari ndox si biir gaal te dafa bëri ci réew mi nag. donc non dafa bari ci réew mi mais tamit kuy jaaxaan di saw sa bopp rek nga koy def. waaw sa bopp rek nga koy def. ay sénégalais bu nangu toog ñu nax la yow la neex. Mm-hmm. mais politique bi mi ngi lëmbi réew mi tamit. wax nga ko mm-hmm. sànq junj nga ko ci biir waxtaan bi. Mm-hmm. coow bi amoon diggante euh, Adji Sarr Ousmane Sonko. dëkk bi rëpp. Ah, ba ñu ne deuxième vague sax dana am ci loolu. politique bi fi mu nekk nii mi ngi lëmbee xam naa foofu la ñuy tëjee élection locale yi di ñëw nee nañ dana yëngoom déet. yaa ngi ciy bay sa waar yow ci mbiru euh, coow yi nga xam moom mooy coow politique bi. waaw ah, maa ngi ciy bay sama waar parce que barki Dembo Ndiaye. Hmm. su ma juumulee Gueule Tapée dama fa ñëw ay xale yu doon set setal. Hmm. invité ma. Hmm. koñ boo xamante ne dañ fay julli it ba ñu tëjee jumaa ji ak léegi. mais koñ bi boo xoolee boucher bi. day jénn tout le temps. mooy ndox yi ndox mi. yenn saa yi bu ñuy julli sax day jénn du sonal nit ñi. xet gi kenn du fa nekk. ma jénn na xale yi. lii mbajam kanam la borom moo koy fajal boppam. maire bu fi nekk bu ko mënul defar élection yi ngi ñëw uti leen carte électeur jëlee ko fi. mais maire bi lu nekk wax na ko jaraaf daf ma bañ. jaraaf daf ma contre. man contre ma doomu aadama. sa doxalin laay contre. doxalin politique. man tey dama toll foo xamante ni képp ku may dugal sama askan. dafay doon koo xamante ni damay waxtaan ak moom lu leer. ndax bu gañee askan wi mën si jëkk seen jël seen gis seen bopp. bari na nag ñoo xamante ni samay xarit lañu. mais ci kaw xaritoo boobu kenn du ma ci def loolu loo xamante ni neexuma ci kaw xaritoo boo xamante ni du ci teg kenn loo xamante ni mënoo ko duma ci woo nit lu bari dinañu wootante nag duma ci teg nit lu mu mënul sama soxla dina néew loo koy xam donte ñoom ñooñ ko war a jox parce que dama bëgg ëllëg su may wax nga déglu ma parce que politique bii fi ne ñun dañ ñu fal fii faluñu ñu pour ñu contre état parce que ñun rek ñooy état parce que état tey bu nermeeloo ñun ñoo leen wéeru mm. parce que ñun ak moom ñoo ànd mm. nombal tànk yi ñu takkal dee kese moo ñu tàqale ak moom mm. te suba président Macky Sall mën na fi jóge keneen ñëw bu ñëwee dañuy àndaat ak moom mais bu ñu fi nekkee di xeexanteeg buur du ñu dem na ñun ñun sumba jun dañuy naxanteeg buur ba buur jox ñu lu ñu soxla ngir ñu mën a defal suñu gox mm-hmm. Mm-hmm. mais nekkuñu fa di xeex mm-hmm. mais daal li may lancé mooy képp koo xamante ni yor na programme bu baax ci Ndakaaru nga bëgg ñu jàppale la boo ñu seetsee bu programme bi baaxee ñun ak suñuy nit dañu wàcc sur le terrain la nax ñoom dañ leen nax rek nag déedéet tolloo dañoo aay de tollootuñu fu ñuy nax hmm. tollootuñu fu ñuy naxe loolu de dañuy wax mais ñoom dañu aay de non ñun tollootuñu fu ñuy nax dinañu déglu ñëpp nag hmm. mais du ñu faral ñëpp hmm. du ñu ànd ak ñëpp parce que ragal piété moom day sax xañe wërsëg waaw léegi pour tëj pour tëj. Mhm. jaraaf dama bëgg nga tontuma ci mu leer naññ parce que man loolu wóoratuma. Mhm. yaakaarantuma sax ne am na. Mhm. est-ce que rab yi am nañ Dakar ñu ngi dox. <laughs> ñu ngi ci biir réew mi ak boo jigéen ñi ni mu fi bëree. Sénégalais yi léegi nit ñi lu leen neex lañuy ñuy sol. muy jigéen ñi. fu leen neex la ñuy taxaw di def naka sa dul noonu. est-ce que rab yi doon baax yi nekk ci réew mi ñu ngi fi di aar réew mi. rab yi fi nekkoon di aar réew mi ñoo ngi fi di aar réew mi ci kaw nga jox leen lu ñu soxla. si kaw nga jox leen lu ñu soxla. Mhm. rab xamul woon dugub ak soow. Mhm. ñun ñooy am lu ñu soxla ci ñoom dem ci ñoom. Mhm. dig leen nag. digg leen bëy digg leen nàkk dig leen soow. signé ak ñoom benn pacte. pacte boobu boo xësee ba dugg ci. say sët sax bu ñu ñëwee dañ koy topp looloo waral xàmb. aaral ma sama njaboot sama kër gi dama bëgg tumuraan ka jóg fi mm. nga waxtaan ak moom ba déggoo ñu sampal la ndaa si pacte nga nekk dugub ak meew boobu boo gisee dof yi bari ndakaaru loolu la léegi li sa nangu woon ak rab bi rab mën na am waaw ah, dof yi bari nañ de waaw ñu tàggoog seen sago bari nañ trop ay rab a leen di jàpp doole ji ay rab leen di jàpp mm. doole ji rab moo lay poussé si lu bon ñenn ñi ñoo ngi drogué wu. Mm-hmm. ñenn ñi ñoo ngi tox yàmba. Mm-hmm. mais rab bi moo leen ciy poussé ba ñu dugg ci. ñii di sàkku xale yi. parce que say maam ñoo waxoon ak ñoom. Mm-hmm. léegi yow boo fa jógee. say sët dañu war a topp looloo tax rab garaw. mais nit mën naa bañ a xam loolu. boo duggee sa kër ami xàmb. Mm. chaque jour tey jii bu ma nekkee ci xàmb yi maa ngi préparé sama ñaari rak. Mm. yu si nekk yoo xamante ni bu ma fi jógee dañu war a xam lépp. parce que loolu mooy cosaan bi. que sunuy maam ñoo ko sàkk man de ñemewu ma toog jeudi. Hmm. bu ma dem waxul ak samay maam wàññeeku man de ñemewu ma. dem waxal waaw samay maam wàññeeku. say maam mooy ñan rab yi. <laughs> mooy rab yi <laughs> parce que ñoom ñoo ñoo ñoom ñoo dooleel sama maam ba mu àgg fii ñu àgg. Hmm. tey de man rëccuwu ma ko. da wax ak ay rab yow. bu baax. lan lañ bañ ma falee jaraaf gis yow. bañ ma falee jaraaf ba léegi. Hmm. teg naa sama bët loo xamante ni. ku ma waxoon am na ci àdduna du ma ko gëm. wallaahi teg naa sama bët loo xamante ni ku ma waxoon mindaafu yooyu ñoo ngi dox ci àdduna duma ko gëm rab la wala jinne am na rab am na jinne ku nekk dina la fëgg hmm. pour waxtaan ak yow hmm. ci boo soxlaa alal boo soxlaa baatin dinañ la laaj yoo xamante ne boo ci xësee ba dugg sa giiru dund la eh, lay topp topp say njaboot giiru dund. alal laa soxla. <laughs> kooku boo ko soxlaa moom da ngay dem ci rab ñu koy joxe ak ñu koy joxe. man mënoo ma boole ak ñoom. man non ko soxlaa non non parce man du ma def lu bon. non alal laa wax xaalis du lu bon tey alal gi mën nañ la ko jox du la ji. dafa am lu muy laaj. alal xajul ci bopp golo. man du ma golo de. <laughs> xam naa non dama la maanaam borom bopp bu ndaw. voilà. man da may da nga defe ne man sama bopp dafa tuuti. <laughs> jaraaf am naa xam-xam de. waaw xamoo xam-xam kii juddu. Hmm. liir bi. Hmm. sax bu ko xeeb. Hmm. liir bi juddu ko bu ko xeeb. bi sax am na lu ko yàlla may. mais boroom xam-xam yi dañu mënante. ëppante. mais nag léegi télé yee bari rajo yee bari. am sa benn journaliste mu lay defal promotion. ngeen di liggéey yéen ñaar. di la wane. loo am compal ka ci looloo fi am. man de jaraaf aadama mee ngi laa wax. faju may rab. faju may jinne mm. duma malaaka mm. duma ma sëriñ mm. jaraaf lañ ma fal Soumbédioune pour ma lijjantiwaat sama gox ak lu ko wër sama gox ak lu ko wër xool population bi ni ñu toogee bu baaxul ma jëm leen joyanti xool kii néewle naka lañu mën a def ba mu am xool xale bu jël yoonu sànk ñu mën la delloo si mm-hmm. xool lii nga xamante ni baatin la ak zaahir suñ la ci mënee dimbali ci li ñu am ñu dimbali ci li ñu amul ñu wari ku la ci dimbali. Mm-hmm. loolu daal yàlla jagleel ñu te ba def ba léegi. Mm-hmm. yàlla moo ñu ciy may ndam. Mm-hmm. ñu ngi lay jaajëfal jaraafa Adama Mbengue bu Soumbédioune jaajëfal nañ bu baax a baax kontaan nañu ci waxtaan bi waxtaan nañu lu bëree bare bare bëri temps bi sax dañ ko yokk tuuti ndax li ñu war a wax war a moo bëri. ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la gërëm. man tamit maa ngi leen di sant. di leen gërëmaat bu baax a baax. di wax nañu jéggalante. tey jëlalante parce que àdduna mm-hmm. dafa xat mm-hmm. diggante bii ngay juddoo ñu ne la liir gi mm-hmm. nga màgg ñu ne la nit ki nga deew ñu ne la néew bi diggante boobu dafa gàtt torop torop torop te ñun lebu gi ñu fexe nekkaat benn say suñuy kilifa ñoom ñoo ñu jiitu ci mbir mi kon ñoom ñoo ñuy wax fu ñuy toogee du nuyu nag sama xarit parce que ragal piété lay wërsëg sama xarit Pape Diagne du nuyu sama sëriñ mm-hmm. El Hadj Maodo Ngom mm-hmm. saltige mm-hmm. maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko santaat bu baax a baax a baax a baax lu ma ko sant rek doyul di wax tamit sama xarit Waly Seck nit ñi nañ ko comprendre te xam ne képp ku boot bukki xaj baw la te di ko wax moom tamit muy moytu di tegg yéenu tuuma yi parce que tey coono gi ñu ko taj ñun dañ ci sonn ci baatin ak zaahir dem nañu ba tolloon jamono joo xamante ne sax dañ ne ku ko laal ñu laal tolloon nañu jamono jooju ci moom ba tax yàlla dogal coolu yëpp fay ñoo ngi santaat kër gi tamit bu baax a baax di wax suñu ñëw si kër gi mm-hmm. buñ fi jógee yàlla doon yokkute amiin yaa di nuyu nag sama benn xarit bu ñuy wax Matar mm. wax dëgg yàlla ku sonn ci man la mm-hmm. lépp lu may def moom laa ciy waxtaanal ba pare mm-hmm. mu doog ci jël ay décision may doog a jël sama décision moom moo jël décision ba pare ma doog a jël sama décision. Mm-hmm. sam benn xarit bu ñuy wax yugur di ko wax Ousseynou. Mm-hmm. konaate kii nga xamante ni moo yor samay wàllu gàllaaj mm-hmm. lu ci ëpp ci moom la. su ma ne laalal ma laal su ma ne bul laal bu ma laal. moom tamit maa ngi koy sant. di sant samay doomu baay bu baax a baax. di yërëm sama ndey di gërëm sama baay bu baax a baax a baax. di wax boo amee doom bu Sénégal yëpp di tudd. yombul dinañ ko tudd ci lu baax. te mën nañ ko tudd tamit si lu bon di leen waxaat salaamaaleykum bu baax a baax aleykum salaam euh, jërëjëf jaraaf Adama Mbengue bu Soumbédioune yàlla na yàlla may gudd fan li nga yëpp say projet yëpp ak liñ la dénk yëpp yàlla na doon ay ndam yàlla na ci borom bi jàpp euh, di ziaraat tamit euh, fukki penc yeeg la ñuy wax mm-hmm. di ziar ñëpp mboolem askanu lébu gi rek ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di leen ñaan ngeen ñaanal réew mi bu baax jaajëf Seydina jaajëf mbokk yi ñu doon seetaan